الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه yi ñu ngi nuyu ñëpp ñi daan topp suñu jotaay seen émission Shukran ñu nekk ci suñu njobbaxtalu jotaay di ñaan yàlla xaaj bi jëm déwén te nar fekke koor gi dundaat ko ci wér ak wér la yàlla nañu ci yàlla boole ñaan yàlla it liñ ci jaamu yàlla mu néew mu bari yàlla ñu ko yàlla nangul di fàttali rek ne lislaam diine partagé la diine la joo xam ne bi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàllalee di ko woote uxuwa la ci woote woon mooy ak bokkoo solidarité la ci woote woon mooy jàppalante moo tax mu jëloon jullit ñëpp tabax leen ñu mel ni benn yaram mu ne lu metti benn yaram dafa mel ni yaram yëpp ay metti wax nañu ko ci suñu jataay yi paase bu baaraam dee metti tànk dana ko jàmbatle làmmiñ jàmbatle ko jullit ñi nag noonu lañ leen tabaxee woon parce que ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ñooñu woowoon ci loolu uxuwa boobu la ñu leen fekkoon ñu àndee ko ñoom yonent yi ndax amu ci benn yonent boo xam ne bi nga egsee weddi nga li sa moroom tracé woon or ko sax yonent bi war a ñëw sa ginnaaw di ko siñaale wane ne mi ngi ñëw pour kum fi mën a fekk su egsee mu tegee ci yoon woowu xam ne yow bi nga doon doxal jàll na euh, moo tax yàlla junj ñu ko ci alquran ci sayyidina Isa nga xam ne yonent bu yéeme woon la yàlla ci laxas ay mujizaatam yoo xam ne buñ ko doon bind du mën nañ ci wax sax ay émission yu bari yàlla wax ñu ci alquran ne id qaala isa bnu maryama id qaala isa isa bnu maryama ya bani israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min altawrati wa mubassiran bi rasulin yati min baadiya ismuhu ahmad wa lamma jaahum albayinatu qaalu hada sihrun mubin yàlla ñuy fàttali ne yonent yàlla Isaa bi mu demee ba def mission ba mission bi déterminé bokk na ci la mu waxoon ay saxaabaam muy xawaariyuun yi wax na leen ne am na kuy ñëw ci sama gannaaw ndaw la comme man dañ ko yónni te dinañ ko jox téere bu dikkee Ahmad lay tudd moom daf leen joxoon sax ba jox leen tur waaye gis nga ne bi yonent bi feeñee sallallahu alayhi wa sallam ak ay kéemaanam yu wér péng ni kii la Isaa doon wax dañu ne lii njabar la moo tax yonent yooyu mosuñoo dañ di bokk ci xeet yoo xam ne ay tànneef lañu nag parce yàlla dafa bokk ci ay tànneefam lu mu nar a tëral lu ne dafa am fu mu koy programme jaarale ko fa moo tax yàlla wax ci alquran ne man yàlla maa tànn seen maam aadama tànn noox tànn ibrahima ci biir mbindee fi nag laa leen tànn tànn leen it ay sët yu baax yoo xam ne lenn ca ñoom ñoo gën lenn ci nit ñi ci des ndax man yàlla kat ku dégg laa programme bi nga xam ne moom ngeen di wisaare waaye ku xam laa li ngeen di def moo tax yàlla sifaal ñu ne keroog bi soxna imraana euh, wax nañ ne mi ngi tuddoon xanata doom daf ko jafe woon mu dox ba ci benn taatu garab coono dab ko mu toog fa di noppaliku bi mu sànnee bëtam ci kaw garab gi gis benn picc boo xam ne dafa demoon fori lekk dikk ŋaang doom ji dugal gémmiñ gi ci biir gémmiñu yaay ji di tibb foofa di lekk mu gis yërmande jooju yàlla doxal ko ci diggante ay bàyyi ma mu ne yàlla yow mi mën lii ci sa xarañteef maa ngi lay ñaan yow yàlla nga may ma doom doom ju ñoŋ soo ma ko mayee day danaa ko yëkkati jagleel la ko booba nag nit ñuy def mooy koo xam ne mbañum rus nga wala nga bokk ci askan wu baax da nga daan ñaan yàlla soo amee doom yóbbu ko ca jàkka ja féetali ko yàlla xale bi nag buñ ko yóbboo ca jàkka ja danañ ko yar yar bu baax su demee ba majeur danañ ko wan ne lii àddina la lii mooy yàlla su fekkee àdduna la tànn ñu libéré ko mu dem su fekkee yàlla la tànn day wàcc àddina ñu téye ko ca jàkka ja mu continuer di dund loola mu mel ni yàlla dafa nangu ñaanu soxna si ca bés booba mu ànd ci ak borom këram Imran yàlla dogal ëmb sosu ca biñ demee ba mu leer leen ne ëmb sosu na yàlla dogalul Imraan fekkee dund xale bi muy Maryama euh, keroog bi mu ko juree mu yëkkati xale bi yóbbu ko ca jàkka ja ne kii day yót naa ko yàlla ndax dama nisaroon ne su ma amee doom danaa ko yót yàlla ci jàkka ji jaamoo ko ko yàlla dogal bi mu waxee loola ñu di ko xëccoo parce que booba ñaar fukki nit ak juróom-ñeent ñoo nekkoon ca jàkka ja doon fa jaamu yàlla Imran moo fa nekkoon nag doon leen magal te yàlla dogal na mu jiitu comme doomam la te moo den son si moo doonoon seen supérieur ñu ne nañ jël doom ji kenn ku nekk nag di ko xëccoo yàlla dana nettali xëccoo ba ca kanam waaye daal muy doom joo xam ne yàlla musal na ko ci seytaane nag lool Maryama des fa nag dàq jaamu yàlla ñépp nag ah mu mel ni nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ca ne Maryama daal keroog bi mu juddoo di jigéen ndaw sa wax ne yàlla yow de la ma la ñaanoon may nga ma ko waaye jigéen nga ma may yàlla ne ko góor ak jigéen yépp yam même égalité xanaa li leen wutale mooy force bi nga xam ne moo dox ci diggante bi yàlla ne ko nag danaa ko ñoŋal ci seytaane danaa ko ñoŋalit ak lépp lu mu jur ci saytaane moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne jëlee nañ ko ci abi hurayra yonent bi nee na lépp lu judd lu mu mën a doon seytaane laal na la ba nga yuuxoo ba mu des sayidatuna mariama ak doomam jooju da isa alayhi salaam ah, mariama nekk fa nag ñu yar ko yar bu baax moo tax bi nga xamee ne dem nañ ba mariama mat jigéen toll ci war a gis li jigéen di gis ah, dafa mujj dagg ab ruq boo xam ne dafa beru moo tax yàlla wax ko ci alquran ne waskur fil kitaabi maryama idin tabazat min ahliha makanan sharqiya keroog ba mu demee ba yëg li jigéen di yëg dikkal ko booba la dem nag làqu ji ci benn place boo xam ne mu nga féete woon penku jàkka ja euh, wax nañ ne ñetti yoon la indisposé ci dundam yàlla yebal sayyidina jibril alayhi salaam def ko muy nit ku rafet di xale lu góor bu rafet parce que su yoroon jëmmi malaayika bu ñëwee du ko attan su yoroon melen melokaanu jinne du ko attan moo tax yàlla def ko muy jëmmi nit ku yem mu dikk ne ko man sa ndawal borom laa loo xam ne li ma fi indi mooy sa borom nee na naa la may doom mu ne ko man de maa ngi muslu yàlla ci yow su fekkee ku ragal yàlla nga man naka laay amee doom te musuma am jëkkër te duma jonjoo ak góor te duma def safaan dinaa jibril ne ko sa borom day pour may la doom loolu lu jàppandi la ca moom lu jàppandi la ci sa borom du dara ndax ay mbiram su ne kun rek ba muy wax ak kun bi kaas gi daanu bi nun gi ñëw ak lim bëgg sotti na ndax yàlla doonul ku soxla doom waaye lim ci jublu mooy wane ay kéemaanam moom suñ borom subhanahu wa taala kéemaan yi mooy lan mooy Isaa dañ dem ba jàppee ko yàlla te Isaa du yàlla affaire boobu na xaw a rëy ci nit ñi lool ba mënuñu comprendre loolu yàlla ne leen bu leen Isaa yéemee bind naa aadama mu gën koo yéem ndax Isaa am na ndey te amul baay waaye aadama amul ndey amul baay booboo gën a yéeme bu fekkente ne loolu ngeen di jax-jaxle xawaa am na baay te amul ndey yàlla kon bind na ko amul ndey amul baay bind ko am baay te amul ndey wëlbatikuwaat bindaat ko am ndey te amul baay doog bind nag ko am ndey ak baay mooy ñun kon yàlla ay kéemaanam jaarale na ko fu ne waaye ñu yëg ci ne nag Mariama bi ñu ko yore ci jàkka ji di ko yar yonent yàlla Zakaria day def heure bu ñëwee ci jàkka ji di seet si Mariama rek fekk fa ñam woo xam ne kenn xamul nu mel mu ne Mariama waaw lii ku la ko fiy yót topp naa ay tànk rond naa gis naa ni fii kenn ñëwu fi mu ne ko yàllaa ma koy jox ndax yàlla wërsëgal ab jaamam ci lum dul sonn yomb na ko lool ndax la tax mu laaj ko loola mooy léeg-léeg mu fekk fa fruit boo xam ne période bi mu ko ko indil du période boobu lay ñor te jamono boobu fu ñuy conserver fruit amul kon yàlla rek a kéemaane mu ne yàlla mi mën lii daal man yàlla tàllal naa la loxo man Zakaria man it maa ngi lay ñaan doom ca la ko yàlla joxe ramz maanaam junj ko dara mu dem ca jàkk ja fa mu taxaw di julli fa la ko ilham bi ñëwal ne ko sa borom a lay bégalee ne doom dana la ko may ju tudd yaxyaa ku dëggu lay doon ku dundal kàddug yàlla gi lay doon sangu lay sang lay doon ku ñoŋ lay doon yónnante lay doon te it ci ñu baax ñi lay bokk moo tax yónnante yàlla yaxyaa wax nañ ni ci bi muy ndaw la ko yàlla jox àtte mu mokkal xeeti àtte yépp wax nañu ne it li tax yàlla tuddee ko yaxyaa ci turam woowu mooy ku dundal diine yàlla ji la moo tax mu tudd kéemaan yooya la ca am ba yàlla dogal nabi euh, sayidatuna mariama gis baax jibril jox ko doom mu mel ni nag affaire bi dafa ëpp ci moom parce que xamul nu mu koy dunde mu daw dem ca àll ba beru ji foofa nag ndax xamut lu muy wax ay bokkam bi mu wàññeekoo ñëw ci kër gi ŋàbb xale bi bokk yëpp jóg darko ko ne ko def nga fi lu kenn mus ta def yow mbokkam Haaruna mi li tax ñu dàkkantale ko Haaruna mooy wax nañ ni jamono jooja kiñ doon wax Haaruna moo dàqoon a jaamu yàlla bi mu faatoo wax nañ ni ñeen fukki junniy nit topp nañ ko topp nañ tàddam googu te ñëpp Haaruna lañ leen tudde ñu ne ko sa papa musu fee def njombe sa yaay mosu fee def luñ koy gàccalee naka nga mën a defee njombe wi yow Mariama mu junj leen xale ba parce que bi mu imbee xale bi ci mag woowu noonu daw song àll bi dafa fekk ëkku tàndarma mu wéeru ci yàlla ñoral ëkk gi ci tàng-tàng bi balal ndox moo xam ne kenn xamul kañ la gëj a daw mu naan ca ndox ma raxas ca doom ja ba mu set witti ca tàndarma ja lekk yàlla ne ko dellul man yàlla maa la garanti parce que mag nga ànd ak soo demee xale bi dana la layal yow bu ci sonn ku la laaj laaj waxal xale bi ne leen dama woor biñ egsee laaj ko mu joñ joxoon leen xale bi ne leen dem leen ngeen laaj xale bi xale bi ne leen man dey jaamub yàlla laa inni abdullahi ataani alkitaaba wa jaalani nabiyan wa jaalani mubarakan aynama kuntu awsaani bi salaati wa zakati ma dumtu xayan wa barran bi walidati walam yajalni jabbaran saqiya mbokk yi daal Isa bnu maa ngi noonu liñ ci bëggoon a tënk lépp xajul ci benn jataay waaye daal ngeen xam ne yonent bu yéeme woon la bu yàlla joxoon ay mbiri boppam yàlla nga ko jaarale it ci namm namm boppam ci la ko jaarale ak wane ci xarañ téefam ne moom yàlla mii doxal de mën na lu ne kooku mooy ay Isa bnu Maryama yàlla setal na ko setal boppam setal yaayam ndax bi mu juddoo ci bersu bi la ne leen man jaamab yàlla laa boo xam ne yàllaa ma yónni jox ma téere def ma ndaw def ma may ko baax ci sama wéy jur te yàlla defu ma muy ko féttéerlu ci mbon yàlla boole na ma it ci ñu baax ñi kon mbokk yi loolu moo doon seen jataay ci seen émission Shukran bi ñu leen doon defal ci dakar midi point net wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa